bi mbënd mi amee ba léegi euh, ñun mouvement ànd Suxali Sénégal avant mbënd bi sax dañu nekk on toujours présent ñu ngi toujours ci askan bi si loolu tey dañu décidé woon def benn tournée pour ndemeeku la situation bi xam ne tey moom la moom la kàcc yi tey nekkee dundee si mbënd bi si loolu yaakaar naa ne euh, dem nañu poñen euh, yaakaar naa avant di dem sax yàlla surtout ak relation yi noo amis nos partenaires yoo xam ne ñoo ñu accompagner guddi bëccëg ni yóbbaale au moins lu mor 4 moto ultra moderne yu quelques denrées alimentaires pour accompagner la population euh, Pour nous, c'est une zone où xam c'est des points bas ay bas-fonds il faut rapidement faire un projet d'assainissement pour pouvoir régler ce problème Pour nous, la population c'est bopp euh, ñoom interpelle bon nous on n'est pas de ay moyens pour satisfaire parce qu'on est un mouvement politique qui accompagne le président de la République, le président Macky Sall euh, si loolu ndimbal lu tout tuuti li nga xam manam mom moom la ñuy yore moom la dem ñu jappalé leen euh, jox nañ leen ben moto pompe ITRA moderne dafa leen ben formation ak aussi tamit xool nu ñu si euh, nu leen japp ci walu grava ben enveloppe. bu jappalé leen ci grava boo xam ne ndox bi dina mëna estagner le temps de régler la situation. ben aussi bu ñu joggé tamit on a fait ben tournée tamit pour aller voir nos militants qui sont au niveau de que que que Maa aladi Ngent. Euh, pour xool la situation gis nañ que kër yu bëri dafa daanu mais toujours c'est le même problème. Mm. le problème principal problème bi yëpp benn la. Mm. yëpp c' des bas-fonds des nappes parce que place su toujours mon bul sonn sa bop lo fa def rek ndox bi day génnaat même en terme technique ñi defar tali dañuy wax toujours l'ennemi principal de la route c'est l'eau l' eau ndox moom moom mooy ndox def moy contribuer 80 si defar tali mom moy mujj lu mu dugg rek donc si loolu tamit euh, def nañu tamit indi fa ay moto pompe indi aussi seen ndimbal. Mhm. donc faral di wax rek mooy état il peut pas tout faire le son excellence président Macky Sall a beaucoup fait. jàppale mais ñun en tant que ñi xam ne ay ndawam lañu ñun tamit yoon na tamit descendre sur le terrain ak tëj suñu bureau yi. Euh, lance wu dans ce sens pour jàppale askan bi tey loolu moo waroon on a fait pratiquement on a fait tourné def moo war a bi depuis ce matin ba à partir de 10h, quatorze heures ñu ngi woon dans les différents quartiers yoo xam ne c'est des zones ñu tuddee zones à problème zone très sensible tey loolu moo nekkoon tey euh, tey visite bi tey lii phénomène naturel la tey ba États-Unis fu nekk tey bu tawee rek bu ko quartier yu bëri euh, day inondé euh, moo parfois du may dégg gars yi s'en le président il n'a rien fait il se trompe d'adresse mm. le président n'a rien fait au contraire dafa gën a wàññi lu bëri. puis que l'acte de la décentralisation les maires aussi ils sont dañuy responsables dans ce sens. xam nga le problème qui se pose à lan affaire curage c'est pas c'est pas l'État c'est les maires ñoo ont a charge di def. avant dañu dafa am qu'on ko près pré hivernage bu amee gars yi dugg si pont yi le problème de curage et puis aussi faire aussi un projet de projet li un projet de pavage j'espère que man mes projets toujours quand je le dis haut et fort les gens nous jël si loolu pour tous les bafons. je pense que nous aussi bu nekkee nekk nga maire si benn gox la première chose à faire c'est nga un état des faire tous les bafons, tous les points sensibles nga def un levé topographie y a des techniciens qui sont là pour ça Les beaucoup ko levé di nga mën a xam des de mën naa fi def pont fii mën naa fi def fi def là tant que dans ce sens ko lu ñu mën a def def def day ni problème et puis boo xoolee la majeure partie kër yu bëri ñu ngi dëkk si ay bafon ay place ndox lañ dëkkee donc loolu c'est impossible loolu moo tax ñun quartier bu si nekk dañ dañ fa teg benn moto pompe pour un peu régler la la situation on peut dire à peut à 60 pour cent